am ah, ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi lay ziar bu baax a baax di jox sa wàcc waay gaan yaa bañ sant yàlla lu séente bi di gërëm suñuy ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp xam nga di nuyu fils de Waalo maa ngi koy bu baax a baax di nuyu sama grand Abdou Ndour di nuyu ñi ma toogal ku si mel ni Gaynde xam nga ak mafia fadda bi di nuyu laax laax bu am xam nga Modou Fall di nuyu Omar Sa Omar Sagna ah. sonn na si combat bi trop nag di ko masawu leen wax nit gars yi na si trop mais ba ndam ñëwee coono yëpp wàcc na ko leen di sant bu baax di leen waa koñ bi dëkkandoo ah leen wax ne nañ ma baal àq nag amee naa leen àq trop trop trop nga dëkk mbër moom coono la dafa metti mais maa ngi masawu ñëpp encore une fois jaajëf. démb moo nekkoon sama cinquième combat. 3 victoires 2 défaites. Mhm. waxoon naa ko moom moo mënul gëm loolu rek man xam naa ni du moom làmb tëri di rek ah, xam nga ak si lu ma jóge woon moo tax non sama sama mun bëre ak sama entraînement laa ko weer wéeru ma ko feneen sama mun bëre ak sama entraînement ak coono yi ñuy teg loolu la rek xam naa ne lu ma liggéey liggéeyu ko te xam naa ne maa ko Yeah. non gars yi moom duñ ma yóbbu ba am pression moo ko moom parce que gars yi xam nañ seen mbër ah, boo xamee li nga yóbbu moom du am pression képp am pression rek xamul lu mu yóbbu mais ko xam li nga yóbbu pression doo ko am gars yi su may bëree dañuy màcc këram naan ndox mu sedd parce que xam nañ ni même su may daan tamit maay daan sama bopp combat bi waaw ànd ak sama grand xalifa rek am nga daj ma ay coono yu metti gën ma bëgg combat bi tamit surtout loolu xam nga nee ma nii ngay bëree ak nii ak nii nii boo ko defee ni nga am ndam nii boo ko defee yàqal sa bopp ma topp ay conseil am yàlla suturaal ma may ñu dem waaw. waaw non làmb la rek làmb moom booy làmb na ngay dem rek. loo fekk rek nga jël bu laajee xeex nga xeex bu laajee nga bëri nga bëri bu laajee ñaar rep aussi tamit nga def ko loolu la rek. moo waaw dañoo laytoo ma cokaas xam nga mu cokaas mu xam ne xeex bi arrangé ko mu daw yooru daw tibb ma ma daw génnee ko ñu jàppante xam nga ma peese ko xam ne kii maa ko bu kàttan ba ma ko jàppee rek sama xel dal na waaw. dama ko jàpp rek sama xel dal man mhm. xaaral ma appliqué ma laali muy dëgëranteeg man bopp xam nga këti këti benn quelque temps après ñu bëre door ko ans mu fekk si ma bopp bi sampu mhm, ma rendi ko wan ko ginnaaw dem sama yoon yeah noonu la demee non ñun lépp nañ ñun buñ mënee woon lépp du nekk mbër non wan foor laam mbër bu ne am nga foor mais yàlla xam na ne sama mënin waneeguma ko si laam. Mhm. mu daje amaguma sens bëreeg mbër ba naaw boo ñu fekkee école yi Géeya Mbool dañuy bëre ba naaw bay përee amaguma sens boobu booy ñuy jox mooy loolu duñu appliqué quoi man dama bëgg koy appliqué. wane lu métti samp jaaga yi ne ngañ yaram bi suul tànk yi xam nga noonu la fa demee quoi. ah ñun moom ñu ngi fi pour làmb rek ñun moom ay xale nañ ñu ngi fi pour làmb bu ñu bëggee diw du bëgguñu tamit ñu xooli leneen rek mais suma ma dama fay des nag. foofu am na benn waaju gàtt waaw ah, mooy ni woon booy bi démb fils de Sadio waaw ah. soo ko amee jëlle ma dimbali ko ba rek moom. que dafay ni plein ko damay daan sa plein su ma daan sa plein ñëw ñu bëre yàlla suturaal ma te su ma moom noonu lu laa koy daane. ñëw gëm loolu nag. lan mooy diis buñ daree xalaat lu diis ñu teg suñ ngemb lan mooy poids ñu am nañ fii sa waalo de am nañ fara am nañ doomu kajoor am nañ Jackson kon lan mooy poids poids bëriwul doole mooy bëre ak xel yee moi je suis paré toujours si man su ma paral woon du ma sax déposer licence moi je suis pare bien bien bien avec moi yeah. oui mais pas tellement yeah. moi on va changer les adversaires li loolu ah adversaire soo lese quoi adversaire soo lese waaw Fils de Sadio moi il propose toi ah non non pour l'instant moom moi il est fixé Fils de Sadio rek non déplacement déplacé non moi il est cité cité une personne Fils de Sadio mais pas fixé avec keneen. Ouais. Non, jamais dans la vie um avec moi. mooy loolu non moi il est fixé là fils de Sadio. fils nag y' a pas fixé moi. moi il est toog xaar rek. noonu la demee gaañ. moi j' étais attend bi parce que saison bi il est gudd quoi. jeexagul terolo. noonu la demee gaañ. daa ma gën avec Laurent les Ndiago oui. Mhm. non Laurent il est parlé moom moi weg weg rek moi il est wax il est jëf ah, mais noppi y pas jëf yeah non Laurent bu ñëwee ñu bëre les Ndiago ñëwee ñu bëre yeah buñ ma bëggul nag garaawul quoi maa ngi fi ku ma yàlla may ma jël mbër laa am na cité mbër laa am naa droit cité ku neex bu Laurent ñëwul tamit li Ndiago ñëwul caat fora na ma may sens waaw comme moom fecc la nekkee si làmb ji làmb du fecc lamb du ànd ak mbër caatu fora làmb nekkul da ngay ànd ak mbër di wane sa bopp lamb da ngay liggéey lu mbër boobu def nga jéem ko def moo gën ngay ànd ak mbër di bu max ay nit xam nga loolu du làmb caatu fora bu ñëwee mu may ma sens ma bëreeg moom yow xam nga ni làmb la. waaw caatu fora kan la daan caatu rëbës waaw apa caatu rëbës limal benn adversaire bu ñu daan limal doo lim moo tax ñu xam ko ak ànd bi muy ànd ak yee barki Serigne Touba bu ñu ma ko joxe mu ne ko du dërëm wallaahi lazi da nga ne alliance bale na am géant mhm. ça fait deux bokkul da nga ne alliance ne am waaw si alliance nekkul si man lu si man nekkul si alliance. caatu fora nañu ñu bëri caatu fora laa fa bëgg bëgguma fa keneen xaw ma ko ba ak Serigne Touba wallaahi la si xaw ma su lay génne wallaahi ko kuy kooku. caatu daal xam naa ko si lu muy ànd ak si tam mais xaw ma ko si làmb gis naa ko nii muy ànd ak mais ay qualité bu bëree taxul ma xam ko. li ma nekk Siteu ak fecc bu mun fecc nag ñu nangul ko ko lool moo tax ñu xam ko quoi waaw noonu la fa demee. gisuma ko nit ki nit ki booy nangu da ngay nangu loo xam gis nga ko mais bul nangu loo xamante ni gisoo ko man su may damay nangu loo xam gis naa ko si moom gis naa ko si kii xam nga ma nangul ko ko mais du ma ñàkk gis lii si nit ki naan dama ko koy nangul. mënul lu ma fekkee si ay defetam moo ëpp ay victoire fekkee naa quatre défaites am mosuma fekkee benn victoire am fekkee naa défaite am moog Ardo fekkee naa défaite am moog Tërëmpër fekkee naa ko défaite am bii passé tamit non làmb ja lu ma fekkee laa man xam après fekkee wu ma Caatu daal su bëggee ñu bëre voilà ma may ko ma dimbali ko rek mu may ma chance ñu bëre quoi. Umar Saloum maa nekk mbër boo xam ñooñu nga fi ñëpp xaw ma leen yàlla xam na ko. bu kaarul nag dama leen di suufeel et tout mais xaw ma leen quoi xam nga nit ki booy wax da ngay wax li nga xam mais loo xamul loo ko wax yàlla xam nañ xaw ma ay caatu jolof ak ay zostura ak ñun xaw ma leen daal wallaahi. <laughs> wax nga ma réer de wallaahi billaahi wallaahi yow daal xam nga ko ma laamu booleel rek waaw su ma tamit lu fa gën jël lu fa gënul rek mais caatu fooraa moom bëgg naa ko trop ma Saliou bu ma moo ma cité ay dix mbër ma caatu raa fixé ma ko fi da Sadio ku si ñëw na. non caatu fora baa foofu rek non baa ma mu laakal ma ko kon alors kii déggul <laughs> foofu samli miina sokaabe foofu caatu fora yaa ndar sar fora ar gaay bi taama ma waaw la demee gaay <laughs> mafia waaw gaay yaa ngi nii rek waaw mafia bàyyi nii gaay yaa ngi nii mooy loolu noonu moom tamit mi ngi waajal ah waaw waaw la demee xam nga di wax ñëpp di woo ñëpp si combat gaynde bi ah. di wax gaay nañ jàpp waaw combat yi mi ngi suñu kanam Gaynde am na combat le 16 16 juillet incha allah moog luy coor 2 di si woo ñëpp di wax tamit fii sa waalo am na combat le premier le premier mai ñu ngi si woo ñëpp nag ñu ngi si woo ñëpp parce que moo njëkk bëre gaynde ñu ngi si woo ñëpp di si woo mafia bi yëpp waa géej waa yëpp parce que gis nañ lum ñu yéene bu ñu amee combat day bàyyi liggéeyam bàyyi këram bàyyi lépp ñëw nekk ak ñun mais comme si mooy bëre. te bu laajoon mu takk ngeen mu sax dugg ñun si géej bi koy def kon ñu ngi woo ñëpp si la premier ñu ci woo ñëpp waaw moom Rock Moussa Dioum Dioum 2 xam nga di wax nag Dioum 2 am nga problème fils de mi laay boo yëgoon doos dugg mais nañ ko bàyyi mu ana sa combat yi woo moom tamit comme ni ko génnee defee après ñu tëj ko yaa ma gën a xam jaajëf. Eh, bisimilah ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay nuyu di la ziar. gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi di sant suñu ñaari waajur di bëggee gaay yëpp di la bëggee yow mi yow mi nga xamante ni waaye yaa OS TV ah di la bëggee yow mi nga xamante yaay jël mbër yu ndaw yi tey mbër yu ndaw yi kuñ ci xam rek gannaaw yàlla yéen a tax quoi parce que xeeboo leen benn mbër la neexoon ngeen ne mbër yu siiw ngeen di jël tey mbër bu ndaw buñ ci xam rek gannaaw yàlla yéen a tax yéenay topp mbër yu ndaw yi xeeboo leen di leen fël tey ba nu ñuy nekkee mbër yu mag kon ñu leen di sant bu baax amuñu seen fay di rafet lu yow sa teewaay parce que nit ku oyof nga ku baax nga xam nga di bëggee tamit mafia fada bi sama booy yi ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla combat bu taxawee duñ nelaw duñ lekk duñ naan dañ ciy jàpp jàppale seen mag seen rak seen xarit comprendre nga kon ñuy amuñu seen fay wax dëgg yàlla ay booy jàmbaar lañ wax dëgg yàlla wala ñuy naan géej waaye koñ bi fii nii amul ñuy yóbbu nit mais man gawuma loolu damaa gëm ni ku si nekk rek looy yóbbu yaa koy wane waaw nit moom boo wanee lu tax ñu war la demal dañ lay demal soo wanewul lu tax ñu war la demal duñ la demal kon nag dañ leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla li ngeen bëgg li ngeen namoon tamit si ñun yàlla def ko waaw di bëggee waat sama mafia waa Grand maa ngi nuyu di leen ziar bu baax a baax ndax falaa falaa juddoo falaa defee lépp xëy na yàlla nag moo ma di géejawaay ma xamee fi lépp su ma tey suma dundee làmb rek géejuwaay moo tax kon moo tax mënu maa dem bàyyi géejuwaay mais tamit mënu maa bàyyi Grand Yoff parce que tamit falaa laa juddoo di leen bëggee bu baax waa Grand Yoff waa Arafat xam nga di bëggee ñëpp Grand Yoff ma limee damay juum waaw sama mafia bi foofu di féliciter am sama rakk sama xarit waaw di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg xam nga na fi jàmm yàgg Euh, di ko wax ni xale noonu la ñi nga bëre démb teg nga ko si yoon làmb noonu kese la soo ñëwee waaj tey ànd ak say mbokk da dal loo xam ne danga ko waaj ay weer soo ñëwee da nga war a dal soo dalee rek gis buntu mais ñi naan am si làmb du entraîné du ni déedéet am si day entraîné parce que xale la entraînement moo ko war su entraîné wul tamit bu ñëwee tamit bu simee dañuy xam ne entraîné wul mais combat bi passé am si entraîné na lu ma entraîné wul sax si combat bi xëy na soo waree daanu bis bu nga waree daanu cuune ngay doon te ànd nañu moom mu gëm ci boppam lu nga xamante ni ëpp na ci boppam ndax dem na ba gëm ni ne carrément moom bu ñëwee day jàpp waa ji ma ne ko non non ma ne ko am ah, ba mu nee naam ma ne ko ki ngay bëreel mbër la te mbër buy def benn benn la soo ko waaxee joxe li nga am lépp ba pare dana la daan mu ngi nii dama bàyyi ma fen tey combat boobu doole bi mu ci am combat bi sax ameewu ko doole ndax man mii damay jàppante moom soo amee doole xam naa soo amul doole xam naa mais nag di sant yàlla bu baax a baax parce que ndam bi boo ko am rek dara du feeñ defet nag boo ko amee léppay feeñ di ko ñaanal yàlla ndam yi mu continuer ba mu ciy nekk champion doon roi des arènes am na bëre bi am na doole bi am na xel bi am na fula ji di ko wax tamit mu gën a jàpp gën a maytu làmb xale la xale moo koy def xam nga di wax ne tamit am naa combat comme ni ma ko waxee le premier mai maak Jum deux ak Moussa Jum di wax ni lu mu waaj doyul waaw ndax man mer laa fanaanoo du ma ko may dara ma ko ci dara sóoraale ma ko ci dara amul parcelle amul dara li ma moom laay jël si dama koy jël si incha allah par force mu neex mu naqari ko waaw si kàttanu borom di gërëm tamit suñu grand Ndour wax dëgg yàlla grand bu baax la. day bàyyi léppam bàyyi soxnam di ànd ak ku nga xamante ni tey yorul xam nga kon kooku noonu dañ koy sant bu baax di ko gërëm mère Nene suñu yaayee moom day sonn ndeysaan ci Amzian Amzian buy bëre day sonn moo tax moo chaque fois ma xas Amzian saaga da nga war a góorgóorlu jàppale sa yaay xam nga li dafa neex ngay bëre sa yaay ñaanal la nangu def lépp kooku rek première gàllaaj la waaw kon nag dafa war a gën a góorgóorlu gën a jàpp sa booy nag. mafia bi nga jàpp leen bu baax a baax a baax loo leen jàpp doyoon parce que ay nit yu nga xamante ne da ngay am combat ñuy jël seen xaalis jël seen coono jël seen lépp di si def ñooñu amoo seen fay wax ku leen wax bàyyi leen jaral xaru ji. di bëggee tamit suñu waykat bi Alioune Gueye waykat bu mag bi waaw yaa bu wayee mu neex mooy borom ambiance lu mu ambiance lu baaxul. bilaay wallaay di ko ñaanal yàlla yàlla def ko mu doon ba xoolal doon ba place ñoom Youssou Ndour fu ñu nekk ñoom waale mu raw foofu. champion la ndaanaan la di ko bégee bu baax a baax a baax waaw te wax ni géej waaye fii moom daal xoolal ñun manqué wuñu dara ñu ngi din ñu ngi saal ñu ngi waykat ñu ngi fecckat lu fi loo fi bax rek fii mu dafay ñeer waaw ñun tapatuñu loolu waa na namuñu dara daal waaw ñu ngi clavier Ali mi ngi fi macaroni <laughs> Ali ngi nii kii mooy doof clavier bu garaaw yi kii xoolal waaw kii mooy loolu noonu barke sëñ Babacar kon lépp a ngi fi noonu la demee nag léppay baax inshallah amul la demee amul kii kii mooy kii mooy gaynde fils de gaynde moom gaynde la tuddee boppam tey boo ko xoolee gis nga ko simil bu ko ragal ragal loolu <laughs> simi ko yow war a wane ne gaynde nga tudd. waaw kay da ngay simi wane gaynde ñu xam ne ne carrément gaynde moo dellu si. waaw di encouragé tamit euh, adversaire am Amzian moo ngaaka yoo wax ne làmb nii la quoi da doon wut si Amzian doon wut si xëy na yàlla Amzian mënu la yàlla jour boobu moom la àndal mu jox ko victoire kon gënal defaru xale nga champion nga nga ndax ñëw wane tapet dëggal nga sa bopp bëre xeex. xam nga yàlla mooy maye am chance la ko jox di la encouragé yow tamit beneen combat boo ko amee bu dul géej waaye fii nii yàlla may la ndam waaw di wax comme ni nga ko waxee am chance nee na fii sa Sadio la soxla na ñëw combat la combat bu neex la na ñëw fii sa Sadio soo paree mën ngaa jël combat bi xaw ma nag soo parewul soo paree man maa la wax man fiis de Waalo soo neexee nga jël combat bi soo ñëwee ñu jàngal la bëre ñu wan nan la ak naka la ragaluñu loolu. yaa andi booy bi day ñëwal yow bu man mu nekk am si koo si jël baax na boo ñëwee ñu wan la nan la ak la. waaw mooy loolu dañ jox coogaan mu sànni si ay kàddu après bu ñëwee ñu tëj sant gërëm xam nga waaw moom sonn na si combat bi trop bàyyi na léppam nag wax dëgg yàlla waaw bàyyi na léppam kër yi kër yi def lu ne ndax combat bi ñu ngi koy ñaanal quoi yàlla moom fa yàlla na ko fay. <laughs> salaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen ñi fi nekk yëpp maa leen aja am man lu may wax am laa koy waxal xam rek combat moom yombul entraînement moom gaan ku ne yomb na day wax lu neex parce que man damay ñoom suba ngoon di entraîné comprendre nga lu mu koy wax mooy na góorgóorlu rek xam nga ma ji moom njëkkante la xam nga kooku entraînement moom boo demee si géew loolu mooy feeñ kon lu ma koy sax mooy na yokk entraînement yi am fulaak am fay la ba pare ba pare gëm boppam xam nga nit da gëm sa bopp parce que boo gëmee sa bopp mën na la may lu ne xam nga bañ basé wu si kenn xam nga gëmal sa bopp rek bañ basé wu si kenn parce fii fii gars yi jàppale wuñ kenn xam nga mooy loolu moom mbër mu ndaw la xam nga pour gars yi teg ko loxo day metti te gars yi dañ kaa war a teg loxo mais duñ ko def comprendre nga léegi man man kenn laay lancer appel rek xam nga man Balla Gaye laay lancer appel ak Sa Thiès ñoom su koñ bi lañ dëkkoon ñoom arrêt de fii lañ dëkkoon di wax Balla Gaye mu jàppale zone Guédiawaye mbëri mbëri ndaw yu ne Guédiawaye na leen Balla jàppale xam nga te dinañ ñëw gàlleem Balla xam nañ ko bu baax moom xam nañu bu baax parce que fii la fooy ara dubalees fii xam nga Balla Gaye nañ ñëw sa gàlle indi suñu mbër bi pour nga jàppale ko te barki Seydina Mohamed lañ fa ñëw te ñu def le tout pour dugg fa barki Seydina Mohamed waaw ak saa kees moom yàgg nañ foo fii nii xam nga lu magee gars yi bëriwul na jàppale booy Guédiawaye booy ara dubalees na leen saa kees ak Balla Gaye jàppale xam nga gay sama sama copain di xam nga combat bii mu jëm xam nga yàlla jàppale ko si moom ba ñegee booy ba léegi ñuy ànd parce que xamante ne xam nga bëgg na entraînement xam nga na góorgóorlu rek yokk doole xalifa dem maa ngay maa ngay ñaanal combat bi yàlla yàlla ko si ndam parce que borom baa la moom am day sonni xam ne te am deful ko dara yaa ma xam am yorul dara deful am na jàpp ñooñu ñooñu di sonni si am neen am jàpp parce que dafa gudd tànk comprendre nga te des fois yi ni ñuy jógee mbëri dafa ñaaw ay mbëri yu bëri ay warkat lañu xam nga ñoom dafa war a moytu loolu noonu àdduna ah, amul solo lépp day jeex di wax gars na mbëri nañ yokk entraînement yi rek xam nga moo ngaa ko adversaire am bi dama koy encouragé rek ndaanaan la parce que yàgg nañu fekkante Mali bu fii ñuy entraîné man xam naa ko mais moom mun naa mu bañ a xam mais man xamee naa ko bu baax leen laa koy conseillé rek mooy na yokk physique xam nga na na defar xol bi mbër da ngay defar sa xol moo ngaa xol bi moo baaxul dafa gaaw a sonn xam nga day onk te onk yooyu si moom na defar na defar kii bi quoi xam nga mbër da ngay defar sa xol fils de Sadio yow boo boo booy ànd ay booy di entraîné booy yeneen da nga leen di entraîné entraînement bu jaar yoon comprendre moom wax dëgg yàlla man yàgg naa ànd ak Jason xam booy lu metti barki alxuraanu karim Jason champion la te booy am comme li ma koy wax rek am ak gaynde bu ñu toppee si ginnaaw Jason barki Seydina Muhammad dañuy mooy seen grand frère mooy seen leader te moom entraînement si yoon billaay waa di gërëm ñëpp nag xam nga wax yàlla ñëpp am jaam rek kaw maa nañ jàppale am xam yaa am gën a xam merci waaw Amzo ah, waaw defe naa gars yi wax nañ lépp mooy loolu baay di sant gërëm rek maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di santaat ma fi yaa Fodé bi ah ñu santaat ñëpp di sant sama yaay bu baax a baax a baax di ko sant bu baax di sant suñu waa kër su mel ni sama jabar magi biisu maa koy sant bu baax xawaa di sant sama rax yi ku su mel ni Anta mami Kumba xam nga ma Abdou Ali Khalifa Papen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu Modou Fall bu baax di ko sant moom tamit sonn na si trop ba ñëwee suba la combat dañoo bàyyi seen lépp ànd ak man su mel ni Mamadou waaw loo leen gis mu naaj foto am genre moo leen gis mu naaj rek Modou Fall moo si jaar quoi xam nga di nuyuwaat Mamadou bu baax ku si mel ni Petit Mbaye waaw di nuyu Ada Fass nag Ada Fass donte ba ñu yéentee yàggul mais sonn na si combat bu baax a baax dafa ñëw si koñ rek bokk ànd ak def ak lépp. kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm laax bàyyi na lépp moom tamit bàyyi seen waa kër bàyyi lépp di ànd ak man xam nga di nuyuwaat ñëpp di nuyu waa koñ ñu ku si mel ni su yaay umma tamit Baba ja tamit Baba Dia di lay xaalisam ay propre mayam xam nga def lépp jënd ko ay sarax ñu koy sant bu baax a baax Aline tamit yàpp na si combat may na ma xaalis su bëree teg ko sama loxo maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm maa ngi nuyu ñëpp daal suñu limee rek dañuy juum quoi. waaw di wax gars kontaan kon ne di wax gars yi surtout ndimbal bi dañ ñu gën a jàppale di woo politiciens yi ak suñu waa koñ parce que olof ñaa dafa ni gën a jege gën a yeey Pape Mama Fall dañ koy gis si ñoom Balla Gaye si ñoom Sa Thiès gis si ñëpp combat bi def nañ lu ne pour gis ko def nañ ba si ay rakam pour gis ko mënuñu kaa gis mi ñoo bokk benn koñ nañ jàppale ñun ñoom Balla Gaye dëgg la jar nañoo jàppale mais am na lu ñu am ba pare parce que ñoom dañ leen puus ba ñu yegg fu ñu waree yegg kon ñun ngir yàlla ñu puus ba ñu fu ñu waree yegg ñun bu ñu yeggee fu ñu waree yegg rek naas quoi gën a jege gën a yeey ñoo bokk koñ bi tout pere naar maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm daaf na si combat bi grand bili na def social si koñ bi moom tamit ku si mel ni yaayam xam nga ak suñu grand birëm tamit biram bu sanc bi biram bu sanc bi da siy jàpp bu baax a baax du Ba tamit gis nañ taxawaayam si combat bi Abdou Ba waaw Mama Seer Mara Dip Silla xam nga sëñ Abdou Ba di ko ñaanal Xaadim kafe tamit ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm gis nañ loxoom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko baax baa baax du nuyu ñëpp daal du nuyu waat Jackson tamit bu baax a baax parce que moom moo ma doon yee 6 heures di ànd ak man géej lu mu métti métti métti métti ak sedd beeg lépp ni ñuy jaar dem suñu yoon bu dee dañuy protéger bu dee wu sax sol pile ni leen daan jaar 6 heures du matin ñu jaar ni dem entraîner amaana lii la ma bëggaloon maa koy sant bu baax a baax di ko gërëm maa ngi nuyu ñëpp daal ku lim rek jum quoi di nuyu booy ndaw yi ñëpp sonn nañ si démb yuuxu nañ def nañ lu ne waaw naas quoi kontaan naa trop nag di wax gars yi gën a ñaan rek gën a ñaan gën a jàpp ndimbal bi dafa des suñ ko de gars yi ñu jàppale ko parce que ñun ay xale nañ gis nga ndaw bu nekkee si benn affaire danga ko siy poussé ñun dont ñun ñii nañ am bu weesoo ñii amuñu ñeneen kon gaa yi nañ si jàpp bu baax a baax a baax magu koñ bi surtout magu koñ bi nañ ñu jàppale ñun bu ñu bàyyi ba jour combat ñu ñëw ñun seen rakk nañ nañ ñu taxaw comme nuñ ñu nu ñu war a taxawoo bu ñu taxaw war dinañ yegg fu ñu war a yegg magu koñ bi ñëpp ñu ngi leen di woo nañ ci jàpp te yàlla rek tax parce que koñ bi dañoo am lu jafe am nañ waykat am nañu mbër am nañu jour te ñoom ñëpp soo gisee lu tax ñu xaw a échec parce seen ndimbal dafa des ndimbal bi dafa des. dimbal lu ñuy ngisal lu ñuy mu wane boo ko dimbali da koy dimbali yéen ñaar kase te yàlla tax di dal si yàlla dimbali ko boo ko boo jiitalul yàlla dimbal amatul foofu. kon ñu ngi woo gars yi bu baax a baax muy waykat yeeg mbër yeeg jour nañ ñu jàppaleel ñëpp fi dafa bëri ay gars yi nañ ñu jàppale Massaly gis naa ko démb nag daa nag maa ak mosu yóbbu esaat gis naa taxawaayam démb kontaan naa trop ñëw fii doom nday laay ak bas Samba Sawan sama pël bi. waaw maa ngi bëggee naa ci wax maire nag waaw démb ceeb bi neex na bëri na añ nañ ci reer nañ ci macha allah xarit sa gis nañ seen bopp waaw kon naas quoi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Omar Sall yow tamit ñu ngi lay nuyu di la ziare di la wax kontaan kon neex ah. eh, jaajëf merci